complexe Cheikh Ahmadul Khadim di université bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di liggéey fii ci Touba Mbacké liggéey bi mu ngi avancé bu baax a baax firnde gi mooy bâtiment yi ngeen jàkkaar lool ñu toll ci liggéey yu jëm ci wàllum voirie bi maanaam tali yi nga xam ne ñooy nekk ci biir université bi ak li ko wër loole nag président Macky sàll moo ko sasoo ne dina ko liggéey. ndigal lañ jot. bu président de la république à travers suñu ministre Mansour Faye ak suñu directeur général Ibrahima Ndiaye mooy gunge bu mu bëgg a gunge sëñ bi ci université bi. parce que xam na ne université bi bu ñu ko defee defuñu ko pour waa kër sëñ bi Sénégal la ko defal jeunesse sénégalaise te président Sénégal mooy président ñëpp. Mhm. donc pour moom gunge bi dafa war. loolu la ñuy jox ndigal nañu nañ ñëw xool ak ñu nekk ci liggéey bi biñ fi ñëwee aussi fekk nañ ni ñoom ñu ngi ci liggéey ci seen farlu. état bi dafa yebaloon délégation bu Ageroute ak Jean Lefebvre Sénégal mi nga xam ne ñooy def liggéey bi ngir ñu amal jotaay waxtaan ak technicien ak kilifa yi nga xam ne ñooy saytu liggéeyub complexe bi defaale visite de terrain nemmeeku fépp foo xam ne tali war na fa jaar ci biir complexe bi ñoom waa Ageroute ak Jean Lefebvre Sénégal li leen ci gën a neex moom moo di études yi fekk nañu ñu def ko ba noppi. donc liggéey boobu def nañ ko ak ay bureau ba wàllu étude géotechnique yi defoon nañ ko ba ba ko. tey gii ñu ngi ci VRD yi études yi aussi def nañ ko ba pare bi ñu defee études yooyu euh, euh, Sénégal aussi euh, à travers ki nga xam ne mooy njiitu réew mi am yéene jàppale sëñ bi ci loolu ngir bëgg a jëmmal loolu aussi ci wàllu VRD ak i tali yi nga xam ñoo war a am ci université donc ci ci cadre boobu la la Ageroute ñëwee tey gii ci ci ci université Touba pour ñun ñu wax leen li nga xam ne moom la ñu jàppoon tëng ko ci liggéey bi ci wàllu étude waxtaan ci ak ñoom ñoom tamit ñu indi ci seen xam-xam indi ñu tamit seen seenu seen seen expérience ba liggéey boobu ñu war ko ñu mën koo defee ci ci ci ci ci ci ci coppatam respecté li nga xam ne mooy mooy liñ tënk ci wàllu yoon ak ci wàllu ci wàllu njariñu liggéey. biñ ñëwee aussi yàlla suturaal nañu lépp lu doon maanaam xayma bu ñu war a def balaa liggéey ñun ñu mën fee def dara ñoom def nañ ko ba pare te ñun ak ñoom ñoo bokk benn làkk bu ñuy làkk ci technique donc amul problème lañ ñu jox ñun mën nañ koo jël jëfandikoo ko. donc loolu la ñuy jël nga xam ne du ñu perte temps du am lu bees lu ñuy defaat suñu mission de contrôle bi ñu àndal nga xam ne loolu mooy métier am ak entreprise bi nga xam ne mooy Jean Lefer bi ñu àndal aussi danañ leen jox kayit yëpp ñu ànd ceeg ñun valider ko ànd ceeg mission bi nga xam ne mooy accompagner xalif bi mooy waa ñoom ñoom monsieur Niagni buñ ko valider rek avancé loolu nag du jël temps du jël temps lu gaaw lay doon leneen li ci topp mooy avantage bi ñu am mooy du ñu defaat appel d'offre bu bees ndax am nañu marché boo xam ne ci ñetti at lay durer Jean Lefebvre raison de Thiès ak région de Diourbel lépp lépp fi wàllu tali bu ñu xam ne nii tali bu ñuy bu ñuy bu ñuy goudronné ak yooyu yëpp mhm. moo koy toppatoo tali yi nga xam ne ñooy nekk ci biir complexe bi dañ koy liggéeye noo xam ne day méngoo ak barab bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fiy nekk te gën mooy ne pavé la ñuy def ci biir mhm. lu tax ñu def fa pavé mooy ne sécurité routière bi parce que li ñuy bëgguñu nit ñi di telli telli di daw ñu mel ni ñu nekk ci mbedd alors ci biir université lañ nekk mhm. leneen li mooy Euh, jekk na parce que ay bâtiment bu ñu àndeek tali boo xam ne ba euh, euh, ciment la dina neex a gis leneen li tamit mooy yomba defar bi yomba réparé bi te lu ci yàqu tey jii bu pavé tojee da ngay rocc rek roof beneen waaw ci biti ci biti danañ fa defar tali comme ni ñuy defar tali fépp waaw mooy bi nga xam ne nii mooy jaar ci ginnaaw université bi wër ko nga xam ne dem ak dikk bi diggante université bi ak ñi ci biti yomb boobu aussi nañ ko defar tali boo xam ne comme route nationale lay doon def ci nag signalisation yi ci war yëpp pour que boo jógee ci rocade bi bëgg a dugg ci université bi du am benn problème de sécurité day yomb booy génn université bi tam mu yomb sëriñ maam Thierno Mbacke mu sëriñ Moustapha Bassirou mi nga xam ne moo jiite kuréel gi saytu ak coordonné liggéeyub complexe bi di fàttalee ne liggéeyub tali yi nga xam ne ñoo nekk ci complexe bi day ànd ak assainissement ndoxum taw bi. ci wàllu liggéey bi la ci am solo ñoom wax nañ ko directeur wax na ko Khadim Niang wax na ko ci wàllu biir ak ci bitti kon ci biir dañ koy defar euh, yoon ci bitti dañ koy defar dañ koy defar euh, te tali yi. Euh, day ànd ak day ànd ak euh, euh, assainissement ndoxum taw mi dañ koy génnewaale day ànd ak itam ñu terrasser université bi day ànd ak itam ci biir ànd diggante bâtiment yi ñu def ay pavage yoo xam ne mooy tax ñi fi ñi fi nekk di mën di dox loolu lépp nag aménagement bi moo koy gën a rafetal mbooloo am na mbooloom taalibe yoo xam ne jël nañu aménagement ba wàll woo nga xam ne lépp luy taaral université bi rek ci biti ak ci biir ñoom jël nañ ko ba pare jël nañ ko ba noppi li nañ sax seen liggéey dañuy xaar rek li li war a jiitu jiitu ñoom ñu topp ci. liggéey bi nag dina créer ay emploi fii ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ndax daañu jël ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk boole leen ci liggéey bi di leen fay boole ci tàggat leen. li ci ëpp solo pour man mooy nit ñi nar a liggéey ci loolu. Hmm. nit nar a am xëy biir Touba ndax loolu. ndax dañuy jël ay jeunes Touba ay xale yi ñu nekk fiir bi Touba di fi daan seen doole ñu former leen ba nga xam ne tey bu ñuy teg xeer yi bu ñuy teg euh, karo yi. Mhm. ñoom koy ànd ak ñun teg ko. ëllëg bu karo yooyu amee ay jafe-jafe aussi soit autorité université bi wala autorité xalif général des Mourides wala même mairie buñ ci waxee ñoom mën nañoo ñëw réparer ko continuer du jar ngay wuti entreprise bu rëy pour mu defaraat ko. kilifa yi nga xam ne ñooy taxawu liggéeyu complexe ak Jean Lefebvre Sénégal amal nañ jotaayu waxtaan wu yaatu weccontee xalaat ci li nga xam ne moo jëm ci liggéey yëpp tali yi ñu defee ko ni nga xam ne moom mooy gën liggéey bi nag nee ñu mën naa door ci weeru juillet bi ñu dëdmal ñu xayma ko daanaka ci ñetti milliards ci sunuy koppar te du répp liggéey bi du yàgg